alhamdulillahi alladi arsala rasulahu bilhuda wa diin alxaq liyudhirahu ala ddiini kullihi wa kafa billahi shahida wa salawatullahi wa taslimatuhu ala alfatixi alxaatimi annaasiri alhaadi wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa radiyallahu an alsaxaabati wattaabicin wa man tabicahum bilhuda ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi ñaanat borom bi subhaanahu wa taala mu wutuñu ci santal ñu boppam ñu ñaan mu julee ñu ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi ak mbooloo mi mbokkam ci yonent yi ko jiitu woon te amee woon mission ak mboolem nitu yàlla yi ñëw ci gannaawam te amee mission ak ñi topp njubam ba bés pénc ñu ngi nekkoon ci silsila bii ñu nekkoon ci siiratu nabi sallallahu alayhi wa muy jaar-jaaru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu toll woon ci sañc gu bees gi nga xam ne borom bi digal na ko soppeem boobu muy ibrahima xalil pour mu sañcal ko pak pakk boo xam ne nii ëllëg fa la xolu jaam yépp ak ruux yi di mujje seydna ibrahim ba mu jógee Palestine ñëw sanc màkk bàyyi fa doomam haajara ci tumuranke googu dellu ba soxna si topp ko ne ko allahu amaraka bi haada mu ne ko naam mu ne ko idan laa yudayiuna ndax yàlla moo la digal lii nga def mu ne ko waaw mu ne ko kon duñu sànk ibrahima dox ñaari tànk ne nag rabbana inni askantu askantu min zurriyati bi waadin gayri zi zarin inda baytika al muharram rabbana li yuqimu salaata fajcal afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamaraati laallahum yashkurun yàlla maa ngi fi bàyyi sama njaboot ci ndanda foy foy goo xam ne dënd goo xam ne nii xayri zi kenn du fi bay ndax ay xeer rek la waaye nag maa ngi leen bàyyi inda baytikal muharram ci sa néeg bu tedd bii benn mission rek lañu fi amee rabbana li yuqimu pour ñu fi taxawal julli ibrahima kiimaan gu rëy la mucjisa la parce que ba fii may wax ak yow néeg boobu ñu ngi ciy taxawal julli moom mooy néeg bi gën a rëy ci wàllu volume ak mbooloo ma fay julli tey jii kon loolu kéemaan gu rëy la euh, mu ne nag yàlla euh, warzuquhum min athamarati yàlla nang leen xéewale ci ay wërsëg ci lépp loo xam ne ay meññenteefu mbay la comme foofu kenn du fa bay ndax ku dëkk ci àll nag te kenn indilu la loo dunde te yow bayoo ko léegi nga dee warzuquhum min athamarati laallahum yashkurun mu nekk bi ci des mooy itam wajaal afidatan min annaasi na nanga def xolu nit ñi tax wi ilayhim di leen sopp ba di fa ñëw ndax ku dëkk ci xur bu mel noonu yow fas yéene woo taxu kenn ñëw fa bu yàggee wéet ray la itam gis nga ñaanam dafa dem rek quelque temps mu nangu ndax jurhum la ñaan googu njëkk a dal ñu ñëw fa muy amru bnu madad al jurhum yi ñoom ñoo fa ñëw dalal ak soxna si soxna si nekk fa ba doomam màgg ñoom ñu may ko soxna comme nañ ko dige woon soxna soo xam ne kenn yaru ko yar bu baax xadis moo ko nettali yonent yàlla Ibrahima ñëw fa jóge Palestine ñëw ziar ko téere yi ñu ngi laaj Ibrahima ban mooy la daan ñëwee parce que va et yombul woon noonu mais bari nee nañ alburaq la daan war ñu ne déedéet giléemam la daan war en tout cas daal daan na fa ñëw temps en temps lu mel ni li olof di tudd ay ay benn bés nag mu ñëw fa fekk doom doomam chasseur la woon comme foofu kenn bayul chasseur la woon mooy da doon rëbbi ji mu ñëw nuyu soxna si ne ko ana borom kër gi mu ne ko dafa génne wax ju gàtt ndax am naa fu ma toog mu nekk déedéet fii amul gan fu mu toog ndax loo leen lekk mu ne fii boo xamoon fii ni mu mettee dañoo sonn sonn sonn ba amuñu lu meew rek lañuy naan bëgg a dee ak tàngaay wi nekk ci jàmbat yu bari Ibrahima ne ko kon nag maa ngi dellu fu gan am dal mënu fi am te dund gi metti na xamul may def fii maa ngi dellu waaye nag naa la yóbbante sa jëkkër bu ñëwee nee ko fal yanqul atabata baabihi na toxul buntu këram gi fi mu ko def parce que foofu du place mu dem ismaila jóge ci sas bi dellu si commencé di xencu ndax ismaila yonent la doon te kenn yónneewu ko muy xencu xetu baayam ci wàllu prophétie ne jabar ji ndax kenn ñëwu fi woon mu ne ko am na góor gu bari affaire daal bu fi ñëwoon mel na nii mel na nii wax na lii wax na lii mu ne ko kooku yëg nga ne mooy sama baay mu ne ko ah mu ne ko Ibrahima laa mi ngay dégg jur ma mooy kooku mu ne ko ay yow bu ma ko xamoon mu ne ko déedéet waxu la leneen mu ne ko waaw daf ma laaj nu ñuy dunde ma jàmbata jàmbat mu ne pat ba yàgg ne ma sa jëkkër bu ñëwee nee ko du ko mën xaar waaye nee ko na changé buntu këram gi fi mu ko def du fii mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin yow la wax ne naa la fase parce que yow matoo jabar kenn yaru la mu delloo ko ay mbokkam waaye jurhum nag utaat nag beneen jigéen bu ko gën a baax gën koo yaru ñu joxaat ko ismaila ca déwén sa góor gi ibrahima ñëwaat doon ziar se doomam fekkaat ko fekkaat fa beneen jigéen bu dul ba mu fa fekkoon daaw kooku naka la ko gis rek daw gàttanu ko papa ma sa ci tukki bi kay toog mu teg ko mu toog mu daw indil ko ndox mu laaj ko ana sa jëkkër mu ne ko dafa dem waaye du soriwul léegi mu ñëw te xale bi jigéen bi xam na ne Ismaila daan na am ay fan ci àll bi waaye teewul mu dalal ko ba mu naan ndox ba àggal e, mu ne ko loo leen dunde mu ne ko allaxmu wal laban wal ma ñett daal la ñuy dunde yàpp lañ fiy dunde ndax moom chasseur la bu reyee léeg-léeg duñ ko mën a dunde yëpp mais dañ koy seel waw ko weer ka ba mu wow moom la ñuy denc suñu paree meew mooy gëléem yi fi nekk ci la ñuy naan meew mi ak ndox ñett yooyu daal lañ fiy dunde ndox mi mooy zam-zam ibrahima ñaan ne allahuma barik lahum fi luxumihim wa fi albaanihim wa fi maaihim ñaan googu nee nañu xamuñu ñaan ko ko gën a nangu képp dëkk lëmm boo xam ne yàpp lañuy ñuy dunde te duñu feebar màkk rek la xew téere yi nee nañ képp ku dëkkee lekk yàpp dangay mujje am feebaru gra parce que niinaay bi dafa lay jàpp yàpp màkk rek lañu xam nga mën nekk xale di ko dund ba ba ngay dee te doo feebar feebaru yàpp ndax ñaanu Ibrahima boobu soow itam ki koy naan bu yàggee gras ngay amee dangay am dax bu nekk ci sa yaram loolu cardiaque lay indi waaye soow moom foofu mën nga koy dund soo bu guddi dara la dal de même que itam yàlla barkeel na ko ndax wa fi ma iha bi mu waxoon moom itam mën nga koo dundee te dara du la dal zam boobu ba tey mu ngi sotti ba fii may wax yow bari na ñoo xam ne yor nañu zam-zam zam-zam ten boo xam ne mu nga ba makk nga amee nekk fii amee ko xam nga barke fa la yam mu ne xale bi nag maa ngi dem mais bu sa jëkkër ñëwee ne am na góor gi fu ñëwoon doon nuyoo mais nekk fal yu sabbit atabata baabihi ne ko na dëgëral buntu këram gi ndax buntu këram gi fi mu ko samp fii la xale bi tée ko tée ko mu ne ko bàyyil ma dem mu dem ba mu demee Ismaila dellu si di xencu xetu wëy juróom mu ne ko mu nettali ko am na góor gu fi ñëwoon nettali ko lépp Ismaila ne soxna si kooku mooy sama baay Ibrahima Xalil nee na naa dëgëral buntu kër gi te mooy yow naa la gën a téye ismaila dañ wax ne alfurusiyatu njàmbaar moom ci moom la ko arab ci jànge muy moom moo njëkk a war ci àdduna ci humanité fas ndax fas kenn xamu ko woon al wuxuusul xumriya lañ ko xame woon al waxsiya fas ci àll la daan nekk di daw comme ni mbaam di nekkee nii ak euh, girafe ak ñay xam nga kenn gisagul ñay kenn ku ko moom day taxawaalu ci àll bi rek noonu la fas meloon bi yàlla bindee àdduna ba jamono jooju Ismaayila nag moo demoon di rëbbi ji gis fas mu gis mu yem dal mu dàq ko mu gis rapidité bi mu ne kii de ku ko tàggatoon def ko moyen de transport dana moom moo gën a gaaw gëléem gëléem day daagu Ismaayila moo njëkk jël fas di ko tàggat di ko tàggat di ko tàggat ba di mën koo torote aller ak avance loolu mooy tudd moo tudde vitesse tey ci oto bu ñu demee ba oto tey dañ naan cinq vitesse six parce que ñu ngi ko jëlee ci fas deux chevaux la moo fi amoon ba yàgg vitesse su trois chevaux quatre chevaux euh, vitesse yooyu moo tudde vitesse tey ba tey première deux trois yooyu ay chevaux la tudd Ismaïla nga gis kon évolution yu bari moom moo ko moo ko jëkke ci wàllu batiment tudd nañ ko ndax moo tabax kaaba gi mook papam ñu ñaan ibrahima nag jëmmi jamono mu ñëw foo laajte ñu ne ko haajara nag noppalu na bàmmeel bëre moo ko moom ibrahima ñëw ñaanal ko delluwaat diiru jamono nag mu ñaan yàlla subhaanahu wa taala wuy ju boromam moom ismail euh, ibrahima ci à peine cent quarante ans moom la dund moom Ibrahima muy dund gu barkeel te yàgg ndax ba mu jug joo Irak euh, ca Namrouz ba bi muy faatu Palestine dund na ba gis ay sëtam ndax Isxaqa dund na ba am soxna fa tabarakallahu doomu baayam ñu may ko ko mu jur ci Yaquba Yaquba ak Iis ay seex lañu euh, Iis moo njëkk a juddu dañu wax ne moom mooy abaa ruum yaquba mooy abu israil is dafa juddu ñu foog ne jeex nañu jekki-jekki gis keneen biñ ko gisee ñu ne yaquba mooy ki mujj ki mu ngi jóge ci aqiba yaqubu mooy mujj na ñu jekki-jekki gis ko mu juddu is nag ak yaquba yàlla ci coobareem dafa def yaquba yonent is téere yi ne dafa révolté ba mujj gi yaqub xaw ma isxaq mi baayam ñaanalu ko ba pare ñaanal yaqub is boobu moo jur européen yi ngay gis union soviétique europe actuelle ak kii ñoom ñëpp moo tax ñu tudde ko abul ruum ki nga xam ne mooy jur romain yaquba moom sëriñ la maanaam is moom ouvrier la woon baayam ñaanal ko ci ouvrage yàlla barkeel ko moo tax Europe ba tey ouvrage kenn dabu leen yaquba nag moom yonente la woon sëriñ la yàlla ñaanal ko ci religion moo mujje doon le prophète de moom la ñuy tudde bani Israël euh, moom mooy Israël afwan ñuy safwatullah ay doomam douze personnes la amoon ñoom ñëpp ay yonente lañ mujje doon yuusufa ca ñooñ la bokkoon benyamin ca ñooñ la bokkoon yahuda mi ngi tuddee wat après yahut yi ca ñooñu la bokkoon ñuy douze personnes muy inni raaytu ahada achara kawkaban wa shamsa wal qamar raaytuhum li saajidin muy onze frères yi ak moom yuusuf ñuy douze ñoom ñëpp ay prophètes lañ foo déggee ci alquran yàlla ne wal asbaati e, wal asbaat yooyu mooy awlaadu yaqub ismaila itam am soxna am ay doom kamu ca taawloo nag moo tudda naabit naabit moomu nag moo jël nuuru sayidna muhammad sallallahu alayhi wa ismaila moom it dund dund gu barkeel ba yàlla dogal mu wuy ji boromam naam léegi nag donn bayt bi muy néeg bi donn itam xilaafa baayam waaye du yonant moom naabit euh, mu nekk ak leer gi nekk ak leer gi mais euh, ay ndijaayam dañu am influence ci ñoom parce que moom dëkkul euh, ismaila deen te moo doon yonant te dëkkul ak ay cousin am fële ci Palestine muy awlaadu Yaqub kon waa Jurhum rek lañuy ñuy dëkkal ndijaayam nag bi nga xam ne mooy Amr ibn Madad al Jurhum yi kooku commencé am ci moom influence ba mu dund ak ñoom cohabiter avec eux ba yàlla dogal moom naabit mu faatu bi naabit faatoo nag Amr ibn Madad al Jurhum yi bi doon ndijaayam jël xilaafa pour la première fois nag xilaafa màkk googu nga xam ne sanc nañ ko moins de siècle léegi keneen ku dul deretu ibrahima jël loolu banu jurhum ñoo jël xilaafa gi euh, boobu sidaanatul bayti moo manam gestion wu kaaba gi léegi dëkkandoo yi di ñëw ibrahima ñaanam nangu ay sëtam dañuy ñëw di tawaaf si ndax moom bi mu tabaxee kaaba gi ba pare dana yàlla lan laay def garavaay bi yàlla ne ko garaba bi yëpp danga koy dajale mu mel ni jànja bu ndaw mu ne ko dinaa yebal ngelaw bu ko tasaare ci àdduna bi yàlla yebal ngelaw mu tasaare ko ci àdduna bi nee nañ fu donj dal dana doon jumaa ju mag fu benn pepp suuf dal dana doon jàkk euh, fu fu fu poussière wàcci danañ fa jota euh, tudd yàlla subhaanahu wa taala balaa àdduna tukki euh, beneen bi yàlla ne ko na nga ma wooteel wa addin fi naasi bil xajji na nga ma wooteel nit ñi ñu ñëw di aj si fii di def fii pèlerinage mu ne ko man yàlla maa ngi nekk ci àll bi man rek nan laa mën a woowee nit ñëpp ba mu kii mu ne ko ibrahim ma alayka illa al balaax waxal rek waaye fan la wax ji ak ji yow sa yoon nekku ci te mooy lii ndax léeg-léeg di nga wax mais fan la wax ji ak ji doo xam fan la ibrahima taxaw ci kaw montagne bi ne ayuha nnaas inna allaha yad'ukum lil xajji bi baytihi fa xajju ñu wax ne ba mu ko waxee yàlla barkeel na wax jooju ba képp koo xam ne war nga aji ji sa giiru dund wax nga keroog labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika lak ba ci ruux yi nga xam ne juddooguñu ñu nga aalamul arwax yàlla jotal na leen wax ji ba ñu dégg ko moo tax ba addunay tukki ku dem màkk booy gis kaaba gi li ngay njëkk a def rek mooy labbayka ko ku ñu woo nga moo koy wax xam nga dañuy jaar ci turu nit nga ne labbayka mais da xool ki aji gi bi mu naan ko ak bañ ko oowee yàgg na trop Ibrahima yàgg na waaye ku dem li ngay njëkk mooy wax mooy labbayka kon ndekete distance su oote bi ak uyu bi moo yàgg waaye képp ku dem rek wuyu nga Ibrahima nag bi mu fi jógee Ismaayila jóge fi naabit moomu nekk fi amee leer gi léegi nag jurhum olof day wax ne roy du niroog piir jurhum duñu ay yonent léegi ñooñu ay administrateur la ñuy administré nag kaaba gi nekk fa di def lu leen neex dugg ci lu leen neex te néeg bi dafa sell néegu yàlla la ba yàgg banu xuzaa seeni mbokk lañu danañ ci ñëw ci kanam banu xuzaa benn giir lañu woon ci yaman ci nee naa la waa jurhum ñi xeet lañu ci yaman ñoom ñu jógee yaman ñëw gis seen cousin yi eh, yor nañ dëkk bu ndaw di ko administrer ñu ngi gis nit ñi ñuy ñëw di acci di fa bàyyi weccit ñoom banu xusaa ñu ñu ñàkk leen yéene loolu ñàkk lu ñuy def waxtaan seen biir dal seen kaw rey fa ñu bare bari xeex fa xeex bu metti ba néewal doole goroy ibrahima yi di banu jurhum ba pare waa xusaa ñëw donn xilaafa gi ndax ñu ngi ko def ci wàllu cousinage parce que ñoom ak wàllu ñoom ak xusaa ñu ngi bokk xaxtaan xaxtaan moo am ak àddinaan ci ximyar dana leer ca kanam bi ñu xeexee ba xusaa ëpp leen doole ñoom nag ci lañ jël xilaafa gi gannaaw naabit gannaaw ay nijaayam yooyu amr ibnu madad al jurhumi ak ay ay ay doomam léegi nag xusaa amee xilaafa gi di ko donn ku dee jox sa morom ku dee jox sa morom ba mel ni e, néeg bi dafa xaw a raaf léegi e, mais fekk xikma yàlla la parce que yàlla xam na ni ki war a donn néeg bi ñëwagul Ismaila nag euh, mi nga benn doom rek la am benn doom la war a am mu doon yonent te moo war a doon yonent yàlla Muhammad te ñëwagul yàlla nag bu bëggee defar benn système da koy da day bàyyi avant tout pëccëxoo bi nekk fa nit ñiy tëb di dal di tëb di dal fekk pour muslih pour mu am maanaam le sauveteur pour mu am faw dafay am ci système bi lu ñuy sauver waaye kenn du fekk lu baax ba pare ñu koy sove kon yàlla bu bëggee defar dara day bàyyi mu yàqu ba pare du moom moo koy yàq mais day bàyyi mu yàqu ndax na nga xam ne defar mooy exception mais yàqu moom mooy règle day bàyyi mu yàqu di yàqu di yàqu ba ñëpp découragé mu yebal kenn ku ko defar époque boobu nag fekk na awlaadu isxaq yi di seen doom yi bàyyi ñoom ñu ngi ñu ngi donnante ak nubuwa prophète après prophète profet après profet ñooñu ko ci ëpp doole mooy yonent yàlla yuusuf nga xam ne moom it eh, ñëpp yàlla bañ na ko ba tuddee ko saar eh, ndono Ibrahima moo ko jël ci cadre boobu eh, bi Yaquba faatoo is afwan bi Isxaqa faatoo bàyyi fa Yaquba ay doomam doon yonant ba presque avant cat bi di Yuusuf Yuusuf ci coono la juddoo moo tax sax ñu tuddee ko Yuusuf mu ngi jóge ci asaf mooy euh, pression ak détresse ak coono parce que yaayam dafa sonnoon ci accouchement am bu ñu tuddee ko Yuusuf mooy coono euh, yàlla dogal euh, bi mu faatoo moom Raaxil di yaayam Yuusuf benn rakk rek la am muy Benyamin Benyamin dañoo soppi turam mais Ben Yasaar la tuddoon parce que yaayam bi mu koy accouché ci la faatu jaare faatu ñu ne kii de musiba la ci yaayam parce que moo tax yaayam faatu euh, kii daal doomu musiba la yaay euh, papa ji ne déedéet doomu barke la al yamin mooy ndijoor mooy barke benn benn maanaam ibnul yumni doomu barke mais tuddew ñu ko woon noonu mash moom lañ ko tuddee woon mooy koo xam moo yóbbu yaayam euh, ñaar ñooñu nag ñu xawoon a wéet yaaxuba jël leen def leen ay doom spécial mu juróon nag frère yi frustré wu ba benn bés yuusuf tëdd di gént euh, mel ni fukki biddiw ak benn ñoo koy sujootal ak jant bi ak weer bi bi mu ko waxee pàppam pàpp ci xam na ne automatiquement ñoo ñooy fra ñoo ñooy famem euh, weer bi mooy tàntam ji nga xam ne mooy jur yeneen frère yi euh, jant bi mooy moom baayam biddiw yi mooy ay frère mu ne ko nag laa tuqsus ruyaaka ala ixwatik fa yakiidu laka kaydan bul ko nettali parce que boo ko waxee say frère dañ lay fexel effectivement fekk na am na ku doon yëndu ba dégg ko kookoo ko wax frère yi ñu frustré wu ñëw ci euh, baayam ne ko yaa abana malaka mën naa ala yusuf inna lahu la xaafidun arsilhu maana gadan nalab euh, wa nartai wa inna lahu la xaafidun ñun moo tax bu ñuy dem tool ya doo ñu bàyyi ñu ànd ak yusuf suñ frère te mooy suñu rakk te euh, ñun dañuy dem amoo ci souci mais moom ak rakkam doo bëgg ñu dem mu ne dama ragal a di bu lekk ko muy till euh, ñoom ñu ree ne ko papa yow xanaa da nga jëm mag parce que ñun nan la till di lekkee suñu rakkate ñu toog di xoole ñu convaincre góor gi ci gàttal ba mu boole leen nag ñoom ñu dem ba ci àll ba seytaane man leen mi génnoon seen maam aadama feeñu leen ne leen kii boo leen ko rayul dina leen fi parce que génte gi mu nettali seen papa effectivement dina am comme Iblis xam na ni génte gi dina am lan moo tax muy insité ñi pour ñu rey ko te xam na ne dina am mais teewul ñooñ topp ko ba dañ koy rey dañ koy rey ba yàggam ki nga xam ne mooy yahuda moo ci gën a sage ne leen comme mënu leen bañ isolé ko ak góor gi kon bu leen ko rey alquhu fi gayabatil jubbi sànni leen ko ci benn teen dana ko may teen bi ñeneen récupérer ko yóbbu ko du leen gis doo leen ko gis effectivement loolu lañ mujj def ba benn caravane ñëw dem ci ten ba fekk fa kii euh, xale bi ne yaa bushra haza gulam ñu yóbbu ko Égypte pour la première fois ndax seen papa mu ngi dëkk falestine ñoom ñu yóbbu ko Égypte jaay ko fa yàlla dogal buur bi jënd ko may ko soxnaam parce que buur bi mënul woon am doom mu jënd ko jox ko soxnaam pour mu koy liggéeyal soxna si xool ko xale bi rafet lool mu ne kii kay duma ko def euh, mbindaan mais doom laa koy def mu yar ko nag ci pale bi mu màgg moom Yuusuf ba fa tabaarakallaahu doon xale bu góor ndaw si nekk ci pale bi di imraatul aziz bëgg ko nag ndax jigéen tabaarakallaahu dafa bëgg rafet te Yuusuf yonent bi dafa wax ne utiye chatral jamaal dañ koo jox genn wàllu taar nga xam ne kon moo gën a rafet góor ñëpp ndaw si topp ko topp ko ba yàgg daal doon ko sàkku ci boppam Yuusuf bañ mu chantage ko nag ne ko danga koy mën a nangu mbaa boole la mu ne ko dee moom a ko gënal jëkkër ji yëg ko ne comme noonu la nañ ko isole yóbbu ko ci tabaarakallahu kaso ba ñu tëj Yuusuf ci kaso bi te yàlla moo ko doon jàngal àdduna mu nekk ci kaso bi bida sinin ay at yu bari ba yàlla dogal génn buur bi gént boole ko yuusuf ñu wooluwaat yuusuf mu firi gént bi buur bi am ci satisfaction ne nañ ko génnal yuusuf mu fal ko ministre des finances et de l'agriculture ñu woolu yuusuf mu ne effectivement mën naa ko yàlla dogal mu nekk ba ni buur ba faatoo moom mu mujjee donnu Euh, nguuru misra pour la première fois doon un prophète doon lu nguur moo bind lettre nag papam ne ko nag na nga ñëw ak sa famille yëpp ba ñu jógee Palestine ci àll ba ñëw nag Égypte ndax Égypte fekk na boobu mu doon ville bu mag ñoom ñëpp nag dañoo raamal Yuusuf dañ ko sujootal Yuusuf jooy ne papa ji haza tawilu ruyaaya min qablu lii mooy confirmation wu gént gi ma géntoon bi ma nekkee xal xale xad jaalaha rabbi xaqa yàlla tey def na ko dëgg après góor gi Yuusuf daggal leen benn quartier quartier boobu nag fa la awlaadu Israil nekk Yuusuf nekk ak ñoom nekk ak ñoom nga xam ne ne lu mu yàgg-yàgg day faatu te moom bokkul ci hiérarchie bi war a yilif nguur gi yàllaa ko ci teg noonu rek effectivement ba Yuusuf faatoo nag dañoo jëlaat nguuru Égypte jox ko copte yi ndax ñoom ñoo fay cosaan léegi quartier bi ñu def nag Israël dañu leen mujje opprimé copte yi bi ñu ñëwee dañoo frustré ne nan la ñuy jëlee doxandéem jox ko suñu nguur ba pare nangam nangam mer nag ci loolu pour dabu loolu tax ñu jël doomu yuusuf yi ak sëtu yuusuf yi nga xam ne mujj nañoo bari def leen ay jaam nag léegi doomu bani Israël yëpp dañ leen mujje def jàmm di leen yóbbu ci tool yi ñuy bay di leen yenuloo ci marché yi di leen def loolu nekk ñoom copte yi ñu doon seeni kilifa benn siècle ñaari siècle ñetti siècle ñeenti siècle ci ñooñu nag la yàlla génn góor gu baax ku ñuy wax imran imran boobu moo am soxna bu ñuy wax euh, yuxaanidu ñu ëmb nag bi mu ëmbee ëmb xale bu góor bu ñuy wax Haruna seetkat yépp am benn urgence buy cla euh, klaxonné mooy daal xawma lu xew mais am na benn liir bu war a judd ci année yi moom mooy anéantir nguuru kilifa gi fi nekk bi ñu ko waxee euh, président bi te actuelle mu doon Firawna Ramsis II à l'époque parce que Firawna dañ foog ne benn nit la te de titre la titre boobu nag ku ko doon rek yaay tudd Firawna mu ngi mel ni le président de la république époque bu nekk dafa am ku koy tudd époque boobu nag Ramsis II moo nekkoon Firawna bi ñu ne ko am na daal liir bu war a juddu ci sa ci seen ennemi yii di waa Israël kooku moom mooy dagg buumu njaam gi te dina la rey yow moom mooy fayul maamam Yuusuf ak ay frère maamam ak ay euh, euh, ñiñ doon bayloog ñiñ doon nangam nangam mu ne nag kon bu liir ba judduwul mu doy sëkk fexe nag lu ne mu dugg ci ba digal police beeg gendarmerie à que jigéen bu bu ëmb nañ ko suivre bu dee góor la jur nañu rey xale bi ci saa si bu dee jigéen la nañ ko bàyyi te xam ne jigéen amul problème ñuy wër di rey ay liir di rey ay liir mais yàlla ci xikmaam mag ñi dajawaat ne Firawna yaa ngi rey rek mais dama ragal ne lu raw ñàkk nguur dinañu dal parce que ñi yore woon main d'œuvre tool yi ñoom ñooy Israël ñoom nag boo leen reyee finalement ëllëg kenn du ñu liggéeyal ci wala ñun ñooy mujjee di liggéeyal suñu bopp te ñun mënuñu lool kon réew mi day daanu léegi nañ ci sàkk pexe mu ne leen comme noonu la année bii damay rey année ba ca topp ma bàyyi année bi nga xam ne ci la bàyyi ci la Haaruna juddu mook Muusa ñoo bokka ndey ak baay bi mu juddoo après mère bi ci saa si ëmbaat bi mu ëmbaatee année ba nga xam ne ca lañ war a rey ndekete ëmb na yonent Yàlla Muusa bi ko ëmbee nag coow li bari ëmb na ëmbul ëmb na ëmbul effectivement ba sage-femme bi ñëw rewle ko bëggoon dem nag dénoncé ko mënatu wax yàlla ci saa yi ne wa awxaynaa ila ummi Muusa an yi fa ida xifti alayhi fa alqihi fi lyammi wala taxaafi wala taxzani inna raadduuhu ilayki wa jaaciluuhu min almursalin ci saa si rek yàlla dafa influencé maanaam dafa dafa dafa dafa wax ak dafa wax ak yaayu Muusa ne ko bu la neexee nga jël sa doom nàmpal ko bu la neexee itam ngar boo ragalee ne Firawna da ko nar a rey utal benn kees nga dugal ko ci def ko ci niil bi niilu misra bi man dinaa ko sàmm ba yóbbu ko ci ku ko yar ndaw si daal ne denc ko moom fitam laal laaju ko defar lu benn kees dugal ko ci kaste ko sànni ko ci niil bi mais nag yabal frère am muy Maryam Maryam bintu Imran euh, bokkul ak Maryam bi ñu xam mooy uxtihi wa qaala li uxtihi qussihi mu ne nag grande sœuru Moussa toppul toppul kees bi mu di ko topp di ko topp ba gis ba mu teere ji ca pale ba mu tiit ndax ñooñu ñooy rey liir yi dafa yàlla grandeur am la bëgg jàngale ak ne lu mu bëgg a def kenn mënu koo dindi fekk dex gi asiyatu bintu muzaahim dafa defar benn piscine boo xam ne nii dafay dem direct ci dexu niil bi ndox euh, léegi nag loolu la kees gi toppoo ba dugg ci pisinu ndaw soosu ci biir pale bi Euh, ay jibéeram muy euh, ña liggéey gis lii ne nañ ko yóbbu ci suñu sàng bu jigéen ñu yóbbu ko ci moom mu ne dajji leen ko ñu dajj ko gis ci doom mais yàlla nee na automatiquement dañ koo dajj rek wa alqaytu alayka mahabbatan minni ma def lii ci liir bi muy ku ko gis am ci moom affection à la place da ko rey yaay yi yaay yi muy Asiya dane ay waay kii rafet na de te xam nañ ne góor la te dañ ko waroon a rey kii rafet na nag jigéen ñëpp noonu ay waay yaay yar ka yaay yar ko te ñoom xam nañ ni kilifa gi dafay digle lool day digle ne nañu rey góor ñi léegi nag mu jël ko taf ko ci dënnam moom Asiya bàyyi ba na ñëw di summeeku mu ne ko de tey dafa am lu ma la doon ñaan lu ma la mas a ñaan may nga ma ko mu ne ah, mu ne ma dama mu ne ko dafa dañ fi for benn doom bu góor ma bëggoon nga may ma ko ma def ko doom wala ñu def ko doom comme ñun amuñu doom na xool liir bi secret secret affection bi itam dugg ko mu xool liir bi mu rafet lool xolam am lu mu yëg mu nekk en tout cas daal mën naa la ko may yow nga def ko sa doom waaye man du sama doom téere yi nee nañu fa la ñàkk chance u na tàmbale bu ne woon li nattaxidahu waladan dinañ ko jàppee doom bu bu ci boole woon boppam rek Moussa dina ko sauver mais da nekk sa doom la waaye du sama doom man may naa la kon mu yar ko foofu di laaj ku koy nàmpal nanguwul nàmp kuñ ko jox mu bañ ba Mariama moomu nga xam mooy grande sœur am doon ko topp moo séen mu dugg mu dugg ak mbooloo mi ah, am na liir bu ñu fi gis am na liir bu ñu fi gis bi mu gisee nag scénario wu nanguwul a nàmp te gisoon na yaayam moom di ko nàmpal mu ne leen hal adullukum ala euh, euh, euh, ala man yakfuluhu ndax duma leen tegtal ku ko ku ko nampal koo xam ne mën na koo yar ñu ne ko xanaa danga xam liir bi mu ne noonu man dama gis rek ngeen ni wax te moom moom ñoo ko ndey ak baay ñu ne ko boo indee kay ku ko ku ku ku ku ko nang ku mu nangoo nàmp ci moom lu mu laaj danañ ko jox mu daw ci yaay ji ne ko yaay gis naa liir bi fi mu dugg ñooñu ñu ngi wër ku ko nàmpal kaay boo ñëwee nee nañ bu nangoo nàmp dinañ la fay xaalis bu bari te yàlla moo waxoon ne ko boo ko nangoo nàmpal na ko nàmpal boo ko mënula nàmpal sànni ko ci dex gi dinaa ko delloosi waat ci yow delloosi bi matul 24 heures ba pare delloosi bii dafa neex parce que dañ koy fay yaay ji ñëw fekk mbooloo mi ñu ngi ko wër ci pale bi mu ñëw raxas weenam da ko jox rek mu commencé namp noppi après nag ñépp janoog kii ne ko yow yaa jur xanaa xale bi mu ne man kii de kii de maag yéen a ci yem dafa fekk sama ween dafa neex ba nga xam ne dama euh, ba xam ne tabaarakallaa xale bu ma nampal day nangoo nam ñu ne ko léegi li nga bëgg yëpp euh, ñu ñu fay la ko mais da ngay nekk ci pale bi mu ne nag pale bi seen pale yi mënuma ci ne man sama kër laay mën a nekk daal boo leen bëggee yaay ji nag ne ko asiya du ma ko nangu parce que première daam du jël doomam di ko xam moo ko adopté di ko yóbbu ci ay mbaar mu ne ah kon nag ngeen bàyyi man sama kër laay dellu ñu ne ko waa garaawul sax léegi kon nag tous semaine semaines da ngay ñëw ñu xool ndax mu ngi màgg wala lool waaw ñaata lañ lay fay mu ne yéen a xool rek semaine bu ne dina ñëw nuyoo si ci pale bi ñu jox ko fa ci xeetu xaalis ak wurus ak or lu kenn xamul mu toll mu delluwaat këram te moom doomu boppam lay nàmpal xam nga loolu kéemaanu yàlla fa la yem Euh, Moussa nag li tudde tax ñu tuddee ko Moussa ci abraniya mu mooy firi ndox alma saa mooy firi al shajaratu mooy ba gis nga ni ko arab tënke ñu ñu tuddee ko saa mooy diggante ndox ak garab lañ ko fekk ndax bi mu duggee ci niil bi ci benn garab la koste ba ni ko fa xale yu jigéen yi fekkee Seydina Moussa moomu nag nga xam ne fa judd ci at mi ñu waroon a rey te moom mooy jur rey yépp rey yëpp moo ko jur te moom faf fafu ñu ko rey li yéeme mooy ñu nàmpal ko ba mu fer ñu indiwaat kanak ci pale bi fala màgge ñu koy solal buur yëre yëre buur mu dund ci train de vie boo xam ne ni kenn mësu koo am te pourtant ci Israël la bokk boobu yàlla mu ngi misote ne mission bi mu war a amee fa tabarakallahu moom moo war a embrasser àdduna bi yëpp yonent yàlla Moussa moomu nag moo nekk ci loolu ba am 30 ans mu doon atte xeex doole nubuwa ji tax mu dóor ki mu doon atte kooku dee nit ñi di ko wër mu tiit yàlla def ci moom tiitaange bu tax mu daw génn dëkk bi dem nag fële ci ardu bi muy fi ay maamam jóge woon ci Palestine fala dellu dem donte xamu fa woon toppa àll bi topp àll bi ba dem ci Shuayb nabiyullahi am fa 10 di ko sàmbal di fa def tarbiya ak nubuwa ba kooku may ko soxna dix ans après fekk mu am quarante nag mat kooku nag naka dellul ci sa famille nga xoole ji sa yaay mu doon dellusi bi mu ñëwee ci tuuru Sina diggante mat Madian ak Égypte guddi jot taw bi bari mu jékki-jékki gis luy leer mu ne soxnaam toogal ma dem xooli ji fële di leer ndax danaa fa fekk lu ma taale safara wala lu ma niitoo parce que sedd bi metti na ndekete safara boobu du safara leer la muy tuuti naka la dëgmal garab gi rek lu set wicc di wax ak moom ne ko yaa Muusa eh yow Muusa mu tiit ah, ku ma xam dafa nekk fii mu ne ko inni ana allah rabbul alamin man la yàlla laa wax rabbul alamin borom mbindéef yi xam nga lu lu xew ixlaa na aleyka summil say dàll innaka bil waadil muqaddasi tuwaa yaa ngi ci xadara bu sell kenn du fi doxe dàll mu summi mu ñëw ba ci garab gi lu mu gën a jege gi gis nag muy gën a leer yàlla ne ko man la maa la bind maa la moom maa la musaloon ci Firawna ba mu la bëggee rey ci sa liir rappale ka nag ci boppam lu mu xamul woon ci boppam yooyu yëpp yàlla ko nekk nag léegi tey dama bëgg Firawna moomu nga xam ne kàccooram gi lamb na àdduna nga dellu ci moom recadrel ma ko te moom ragaloon na moo ko taxoon a daw foofu Moussa tiit parce que tey kontaan na parce que ki mu dégg mais nag amul fit mu ne ko wajal li waziran min ahli est-ce que doo ma boole doo ma utal adjoint ci sama famille Haaruna axi Haaruna sama frère la ñoo bokk ndey ak baay moo ma mage benn at ci saas yi yàlla ne nangu naa ko léegi dañoo def interconnexion ci Haaruna Haaruna mu nga fa fële ca Égypte mais mu ngi dégg conversation bi ci saas yàlla nag ne leen izhaba dem leen ila firawna innahu taxa ëppal na beew na ëppal turyaan mooy tudde excetage dafa ëppal ndax nee na maa alimtu lakum min ilahin gayri waxaan ne ana rabbukumul aala ci gàttal ñoom ñu ànd ñëw Moussa rejoindre Haruna wax ko mu ne que effectivement dégg naa communication bi ñu dem seen yaay ñaanal leen jooy ci suba ga nag ñu ànd yàlla bokk na ci màndarga bi mu jox Moussa na ne ko waa bu ma weddee lu may def mu ne ko maatil ka bi yaminika yaa Moussa lan nga amee ci sa loxo mu ne ko hiya asaaya yet la mu ne ko alqiha sànni ko naka la ko sànni rek fa idaa hiya mu mubin mu doon benn kobra bu mag jaan jaan daw mu nekk laa taxaf bul daw inni laa yaxaafu la dayyal mursaluun man sama missionnaire du ragal sama missionnaire du ragal eh, xusa jàppalaat jàppaat ko mu jàpp ko mu dekkaat yet comme noonu mu nekk nag nii muy def nii mën nga cee tiital firaw na mu xam ne yow yonant nga ba yàgg mu ne ko axrij yadaka euh, dugalal sa loxo ci sa poche nga génnaat ko mu génn ko fa ida hiya baydaa li nazirin mu raw projecteur mu ne ko ñaari yi ak yeneen yi lay topp dinaa la ko dabu demal nga wan leen ko ba ñu xëyee ñu ànd xel mu dal ñëw ci pale bi nuyoo ne garde du bi président lañ soxla woon ñu xool ko ak seen yére yi yu fagge yi ñu sol gàjje bi dafa réeba daanu <laughs> mais yéen xam ngeen li ngeen wax président de la république mu ne moom la ñoom lañu moom lañu sonn yow mais lan la yow demal rek nekk dafa am ñaari gaay yu fi taxaw nee nañ yàlla moo leen yónni nee na yow lañ soxla mu ne dégguma li ngeen wax de yàlla kan moo mais moom mooy yàlla ji mu ne ma ne demal rek rabbul alamin laa wax gàjjee bi dem fexe ba protocole bi dugal ko mu ne Firawna dafa am ñaari gaay yu taxaw fële ay sàmmkat lañ daanaka sax nee nañ yàlla moo leen yónni ci yow ñit ñi reewandoo ree ree ne ne waa na eh, arxilaahu dugal leen leen ñu ñëw mm, na ak couronne bi mu sol ak pale bi nag waa mais yow dafa mel ni dama la xàmme musaa ne ko euh, non ëpp na xàmme yow man maay Moussa yow yaa ma yar mu ne ko comment yow foo nekkoon mu ne fi ma nekkoon nag message boobu laa la bëgg a indil xam nga lu xew yàlla nee na doo yàlla nee na nga na nga nga gëm ma man ak Haaruna waa ani narsil bani Israayil ak waa Israayil yi ngay liggéey liggéeyloo nga bàyyi leen buumu njaam gi metti na nga goreel leen te nga jaamu yàlla wéetal ko Firawna ne man damay génte wala lu yow maa ngi doon traqué pour rey la ndax ki nga fi reyoon année yii booba tey gisuma la nga ñëwatin sang may waar keex keex keex di ree euh, ba yàgg mu ne ko ij'al lii aaya lan moo may confirmer ne yàllaa la yónni mu ne ko yomb a sànni bant bi nag naka la ko sànni mu nekk jaan joo xam ne moo ëpp bi mu nekkoon ci àll bi parce que bale essayage la woon mais bii moom sobaanun mu biin bu mag la boo xam ne xaw naa toll ni gëléem dëgmal nag firaw na rek mu tëb daw wëyaa yooyu te boobu melokaan kenn musu ko woon gis ndax ku ne woon yàlla la digg yàlla lii wan la ne doo yàlla ruslu na mais kooku keroog kenn mënu ko ree parce que ku ku fay toog di ree du fa am ñëpp a daw nga mu des ñoom ñaan yi yaa nga mu ne euh, euh, naasatuka naasatuka bir rahimi yow Moussa maa ngi lay ñaan ci axu yar gi ma la yar arrêté lii Moussa téewaat ko rek mu nekkaat yëpp mu ree nekk yow gannaaw ñemewul yi ne réclamé na yàlla yàlla téere yi ne nañ dafa tiita tiit ba xamatul lu muy wax intelligence bi dafa dem ne ko innaka innaka saaxirun mubin ah yow dëkk bi nga fi jógee magie nga doon jàng ba maîtriser nga ko ba àgg fii mais man danga ma bett mais mënu ma mënoo ma défier léegi demal danaa woolu magi magicien yi fi nekk yëpp ñu daje ma organiser leen benn benn benn benn cérémonie bu dee loolu rek ngay jaay am naa ñu la ko fi dax xaat weddi na ko nee na saaxir moo tax képp koo gis mu yor mission dégg na baat boobu njibarkat la day njibar moom pexe amu ci yàlla dogal ci gàttal ñu dem jàpp bés ba ñu ñëw lu ko gën a yéeme amat firaw na jële ci gàcce gu rëy nag après nag gàcce gis nga nit bu la xasee yaay rek ci frustration nag ngay jëm ak tëkkuwaate nekk yéen la aktulan naka danaa la rey yow amoo benn thèse boo ko war a reyee danaa la rey ci loolu la nekk ci loolu la nekk ba tisa aayat yëpp ñëpp ñëw yont yàlla nag Muusa ñaan yàlla ne rabbana innaka atayta firawna wa malaahu zinatan wa amwalan fi lxayaati dunia rabbana li yudillu an sabilik fatmis ala amwalihim wasjud ala qulubihim fala yuminu xata yaraw alazab alim lu mel ni ñaan nga yont yàlla noox ñaanoon moom la Moussa ñaan ndax ñoom ñaar ñoo niroo xol dañu dëgër xol teg ko ci mbaax nag ak principe yàlla Firawna boobu ba tey maa ngi koy woo prophétie gu yàgg la nag yont yàlla Moussa ay décennies woota woo na ko Firawna di gën di rakkaaju rek mu ne ko yow yaa tax yow yàlla Firawna rakkaaju parce que innaka atayta na yaa jox Firawna wa malaahu ak ministre am yi am alal ju baree bari ay milliards ñu ciy def lu neex lu lu lu leen neex wa zinatan jox leen taar ay palais yu rafet ba doon tay ay kat-kat yu baax euh, li yudillu an sabilik pour ñu réeral nit ñi euh, léegi nag comme yaa leen jox loolu boo bëggee affaire bi arrêté da ngay tëj bunta bi rek da ngay tëj robinet bi rabbana tmis ala amwalihim na nga effacer seen alal yëpp yëpp yëpp ba mu daanu ci seen kaw xam nga ku alal bi ki tax alala ki tax mur rakkaaju ngir alal bu alal ji demee nu muy def day yaru mais yàlla nag bëggatuma bu ñu yaroo ba pare nga mayaat leen xelu tuub ndax bu ñu tuubee xam naa la da baax da nga leen di jéggal te vraiment li ñu fi def daal man metti na ma maa lay ñaari te wustut yàlla nga takk ala qulubihim seen xol fala yu'minu ba duñu gëm ndax man damay bañ yu bon yi ñu fi def bu ñu gëmee nga jéggal leen affaire bi demaat sero man loolu duma ma oo wasjud na nga takk ala qulubihim fala yuminu ba du ñu gëm xatta yaraw ba ñu gis al azab al alim gi ma leen di tëkkoo boobu ba tey parce que bu ñu fi tuubee nga baal day mel ni li ma doon wax du dëgg bu ñu gëm te yóbbul alal ji ba ñu gis ne li ma doon wax dëgg la yàlla nekk nag kon xadis xadis xadu jiiba daawatukumaa fa saqima wala tattabi'anni sunana alladina sabila alladina la ya'lamun yow yaakaaruna nangu naa seen ñaan égal dinaa yàqu seen alal dinaa dëgëral seen xol duñ mën gëm waaye nag toog leen ngeen déglu téere yi nee nañu ci ñaan googu la ñuy xam ne ñaan gu yéex a nangu maanaam ñaan goo yéex a gis terewul mu nangu prophète lépp lu mu ñaan day am mais yàlla bi mu ne xadu jiiba daawatukumaa wuyu naa ñaan gi nangu naa ko nee nañu fi ñu ko waxee ak fii na di labe dix ans dix ans moo tax kon ñaan yàlla dara gisoo ko tax nga ne ñaan gi nanguwul njuumte la ndax ab yonent bi nga xam ne si ci sirru kun fayakun lay ñaane mais ñaan na ko te dix ans la gis réalisation bi massa nag yow mi dul yonent kon bul ñaan mukk ba foog ne ñaan gi dafa nanguwul jëlal sa temps rek nga toog xaar benn bés nag yonent yàlla Muusa yàlla wax yu ko ne ko nag innahum muxraquun ñii dama leen labal comme ni yont yàlla noox ni ma labale woon nitam mais ñii ci géej laa leen labale mu wax ko lan la mu expliqué dangay wax sa waa kër ñu daje dem ci watu géej ga def fa seeni euh, euh, jàkka di fa jaamu yàlla ba pare ab waa firawna seeni gànjar ci ay or ay jama ak nàngam nàngam pour taxawal seen fet buñ jëlee alal jooju yëpp nag daw bu ñu dawee dinaa xiir Firawna ak waa këram ñu toppaleen léegi boo ñëwee ba ci géej gi danaa la may nga mën a jàll ñoom duñ jàll ñu yem fa c'est des milliers xam nga des milliers d'individus ku leen bëggoon a rey ci jaasi di nga sonna trop yàlla da leen sóob ci géej gi loolu bi mu amee ñu sóob leen ci géej gi yonte yàlla Moussa jël jël yat bi bi nuuri Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne ñëwagul dóor ko géej gi xaar jàll moom mu jàll ak waa këram yépp na suubu géej gi téere yi nee nañu ay ministre neewoon nañ ko lii miracle la jarul nga ciy dugg ndax xale bi yaa ko yar waaye lii mu man yow mënoo ko mu dee ne dina dem ndax daal xale bi yab gi daal am na ba pare yab gi téere yi ne déedéet Haman ci boppam moo ko xiir ci dem gi ña ko xale bi bu la échappé après kersa ngay am ci dëkk bi soixante-dix mille personnes jiital na ko ñu topp euh, ñu topp muusa naka la Moussa dem ba ci beneen riif bi euh, waa Firawna solu géej gi ba ñi njëkk a nekk ci digg géej gi ña mujj dugg ci géej gi ba nga xam ne armée bi yëpp armée Firawna bi yëpp a ngi ci biir géej gi yàlla ne yont yàlla Moussa dooraatal yet wi mu dooraat yet wi géej gi fanxaloo bi mu fanxaloo nag téere yi nee nañ ni ñaari vague yi dalandoo dafa dammate seeni yax avant mu leen alak mu ngi mel ni ku bâtiment daanu sa kaw xam nga car macha allah kenn du ne dundati na ñoom avant lab gi rek dee nañ ndax nit yëf yi dalante métti na métti goo xam ne seen yax yëpp la dàmmandoo <clears throat> ñoom nag ñu dem ci beneen riif bi ànd ak bani Israël ñi ko gëm ba fi ñu mujjee ci tiix bi ndax ñoom it dañoo jéggi rek ne lii kéemaan la lii kéemaan ñu waroon a gën a gëm yàlla ñu def Moussa nag fawukaay ñaan kaan ijaal lana ilahan kama lahum ilah mais yow ñun vraiment bi ñuy nekk Égypte daan nañ gis ñoom ñuy jaamu xërëm est-ce que yu doon defal benn xërëm comme ni ko ñooñu amee mu ne mi innakum qawmun tajhaluun yéen yéen a dof yéen yéen dof yéen miracle bi leen yàlla defal bërki démb rek alak na doyu leen kéemal yéen ci yàlla Moussa mer ñu jekki-jekki nekk xam nga lu xew sax yàlla ji nga naan nii yàlla nee na ma lii nee na doy na arina allah jëhratan wan ñu yàlla tant que yàlla toogul nii ñu toog nii jaratul nga ñuy expliquer dara yàlla nee na mu ne ñii nag ñu ngi bëgg rek rakkaaju fa axadathum saaiqatu wa hum yanzuruun benn malaaka moo ñëw xaaju rek ñépp xëpp yant yàlla Moussa ne rabbi law shita ahlaktahum min qablu wa iyaay afa tuhlikunaa bi ma faalu sufahaau minna yow yàlla ñii xam nga ne duñuy nit ndax bu fekkoon bëggoon nga leen alak mënoon nga ñëw dugal ci géej ga bu yàgg ñu dee waaye bu ñu toppee waxu dof yii nii ndax bu la ñuy weddee itam man gëm naa la ak sama frère ak Mariama mi nga xam ne mooy sama euh, sœur ak lenn yàlla dekkalaat leen ba ñu dem nag ba waroon a dugg Sham ba euh, yonent yàlla Moussa ne leen wat xul baaba sujjadan duggaleen ngeen sëgg ñu bañ di ree di saboote ñoom ah, xam naa ni ma gisee ay farceur lañu woon daal dañ yeboon Moussa yëpp ko yeb gu yéeme te lu ne gis nañ ko yàlla yàlla moo wax ci alquran yaa ayyuha alladina amanu laa takunu ka alladina aadaw Moussa fa baraahu llahu bima qaalu wa kaanu inda allahi wajiha yow jullit yi bu leen mel ci yonent bi ni waa ba banu Israil meloon ci yonent yàlla muusa parce que foofu kaay lañ ko jàppe woon di ko lor di ko wax lu ne loolu rafetul ba mu ne leen duggaleen ci dëkk bi ngeen kii ñu ne ko non ñun du ñu sujjóot euh, dañuy daramu xam nga loolu euh, reewande niru ñun kay dañuy darangu te darangu ku ne xam moo gën a metti wax dëgg yàlla sujjóot rek xaw ma afwan kii rukkoo rukkul baabu sujjóotal ñu ne non non mu ne leen waqulu xittatun na ngeen wax ne yàlla yàlla ñu sippil suñu bàkkaat ñu ne ko ñun dañuy du duñu wax xittatun dañ naan xintatun min shairin non pepp dugub la ñuy wax eh, dugub dugub lañ au que ñu ne yàlla baal ñu dañ naan noo yàlla dugub lañ bëgg dugub xam nga loolu kenn xamul mu nuru yàlla nag ci waxin yonent yàlla Muusaa mer ne rabbi fafruq bayni wa bayna qawmi eh, yàlla taxaleel sa mën dal ñi bëggatuma leen a gis ndax man mosuma woon gis ñu waye di yembadi ba àgg fii ak li nga leen defal yëpp léegi nag ci lañu réer ci tiix mi réer boobu téere yi ne am nañ fi ñeent fukki at ñeent fukki at yoo xam ne fu ñu xëyee fa ñuy gontoo fu ñu gont ba faraan fa ne tey moom dañuy départ pour jëm ci dëkk boobu ñu doon bañ a dugg dañuy yendoo dox suba bu guddi buñ guddee ñu ne lañ campé fi ñuy campé ndekete fa lañ fa lañ fa lañ quitté woon bi ñu ne mais ñun dañu réer ñun ndekete fii lañ kii wa te ci suba ba ngoon la ñuy dox de bu ñu kii ne pourtant man fii laa sampoon sama xayma kii ne fii laa sampoon kii ne fii la woon ñu ne noonu ko déwén dinañ xoolaat yoon suba dinañ xool yoon bi bu ñu xëyaatee ba mu naaj ñu commencé dawaat dinañu dox lu ëpp trente kilomètres bu ñu demee ba war a euh, campé xool ne mais man jànj bii laa dendee loon ñu gis ne fii lañ xëy woon ci boobu xaal lañu nekk yàlla ne yatihuuna fil ardi di wëndeelu ci suuf si arbaina sanatan quarante ans quarante ans bi nag li mu mujj jur mooy mag ñu ci bari nag ci lañ tooyee dee dañu dee ñu ci bari dañu dee wax dëgg yàlla quarante moom même sax bu ñu loolu bu leen dal woon quarante ans ku ko teg ci at ya nga jotoon war nga mën a dee ñii tooy dee eh, xale ya mujj juddu nag ñoom ñoo màgg ba dugg ci dëkk bi ci tiix moomu nag la yonent yàlla Moussa xam ne mission jeex na yàlla dana ko yabalal keneen ku koy yeggalil mission ca tiix boobu la faatu moom ñu denc ko foofu ci àll boobu ca tiix ba ca la frère faatu Haruna moo ko njëkk a faatu sax ñu denc ko fa après nag message bi ci lañ ko jox Yusha ibnu Nun kooku nag moo dugg ak njaboot gi euh, ci Sham après ñu installé fa fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin Yusha ibnu Nun moom la yàlla wax ci alquran way qaala Moussa li fataahu la abra hatta abluga majba al bahrain mooy Yusha ibnu Nun yonent yàlla Moussa nag ci la fi bàyyi diine judaïsme ñoom nag ñu donn baytul maqdis euh, donn jumaa ji nga xam ne seen maam bàyyi woon na ko fa muy yaaquba mi nga xam ne moo fa quitté woon demoon Égypte téere yi nee nañ diggante seen séjour bu njëkk bi muy bi Yuusuf oowoo oowee papam ak ay frère am ñu ñëw ba liñ dëkk foofu ba nit ñuy dellu siwaat war mat na trois siècles moo tax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nit fu mu dellu fu mu dem fu ne war naa xam ne dina fa jóge euh, awlaadu yaquba ñoo jóge woon Palestine demoon Égypte nekk fa buur nekk fa ay jàmm lu ne ñu duggal ko ñu liggéey loola quatre siècles après ñoom ñoo dellu sewaat ci seen suufi maam yi après ñu taxawal foofu yu Yusha ibnu Nun bi mu faatoo yàlla yebalaat nag ay yonent yu bari yonent bi nee na jammun xafiir ñu mee ñoom ñëpp ci Israil lañu ñu bokk euh, fa tabaarakallaahu Ilyasa ñëw fa euh, ba ci fa tabaarakallaahu daawuda daawuda qissaam ñëpp xam nañ ko ndax yàlla nee na la daawuda jaaluta fa ataahu llaahu mulk Goliath mi nga xam ne moo doon buur foofu sonaloon yahud yi ñoo yahut yi ñibbisi nañ foofu mais amaguñu leader ñu ko doon ñaan di ko doon ñaan ba nag gis benn yonent ñaan ko ne ko ñaanal ñu buur ay yonent rek lañ doon am mu ñaanal leen buur ñaanal leen tabaarakallahu itam yonent yàlla yebal leen ku ñu wax taaluta mu wax ko yonent bi mu ne inna allah qad baasa lakum malika yàlla yebal na leen taalut pour moom mooy conquérir pouvoir bi ba ngeen jot ci ñu ne mais kan mooy taalut ñu xool ñu ne mais sàmmkat bii lam yutta saatan min al maal kii amul dara kii sàmmkat la benn mbaam la yore mu ne ah kii de yeneen ñaan nguur daal yàlla kii la ko jox ñu mer nag ne ci bi danga ñuy sayite wala bokk à la bu fekkee dëgg la ne moom mooy buur bi effectivement kon euh, indil ñu ay màndarga mu ne leen màndarga bi yàlla nee na bagage yu yont yàlla Moussa yi mu bàyyi woon ci àll ba te seeni maam doon ko wër ba sonn jotuñu ci lu mel ni ay dàllam ay yëreem ak bagage yu yont yàlla Haaruna ñu dencoon ko ci benn valise yàlla dina leen ko indil miraculeusement jox ko buur bi ngeen xam ne lii la parce que bagage yooyu dañu wax ne soxla buñ mës a am buñ ko mësaan a ñaan rek dañ koy gis bagage yooyu nag dafa mujj réer ci seeni loxo bi ñuy xeex ak waa Palestine bi mu ñaanee nag miraculeusement ñu ñëw ñu ne ah lii de confirmation la taaluta kon mooy buur bi ñu dem nag war a xeex ak jaaluta ànd ak ñoom ci armée bi am ci xale bu ñuy wax daawuda daawuda moomu moo rey cible bi ci muy jaaluta bi mu ko reyee nag taaluta kontaan ci lool may ko doomam ba pare nag ne ko bu ma fi jugee yaa may donn ci nguur gi ndax yaa fi gën a jàmbaare taaluta faatoo yonent yàlla euh, daawuda nekk buur ba pare nekk yonant moom it administré bani israila ab diir bi mu faatoo bàyyi fi doomam muy yonent yàlla suleyman mooy le prophète salamo moom it mu nekk roi boo xam ne moo ëpp nag influence ci buur yépp ndax moom moo ñaanoon yàlla yàlla may ko nguur goo xam ne keneen du ko amati ci gannaaw moo tax ba àdduna tukki ni Suleymaan yilife woon àdduna moomee ko woon àdduna jekkoo ko àdduna keneen du ko amat moo tax ku foog ne nitu yàlla du am àdduna wala du am xéewal gu baax dañuy juum mbon taxu la am wërsëg baax taxu ko ñàkk parce que àdduna ki ci gën a séddu ki gën a yilif àdduna ki ci ëppoon alal nga xam ne kenn du ko amati ba tey non seulement jullit la waaye ab prophète la woon ndax moom moo ne rabbi habli mulkan la yambagi ahadin min baadi innaka antal wahhab yàlla nag ma may nguur goo xam ne ak royauté boo xam ne keneen du ko amati ba àddunay tukki ba tey kenn amagul lu tol noon te kooku prophète la woon moom itam bi mu faatoo ab diir yàlla yabal euh, yonte yàlla Zakariya moom mu nekkoon imam ci tabaarakallahu euh, moom nag Suleymaan moo tabax nag moom moo ne woon yàlla nag ma may ma tabax temple bu mag bu xaw a tolloog bu mag ma tabaxal ko samay cousin muy bani Israil moom moo tabax baytul maqdis muy jumaa ju mag jooju fa nekk fa tabaarakallahu def fa miracle yu kenn xamul nu mu toll ndax yàlla tàggat gi mu ko tàggantaloon ay jinne ñu mujj nag di donnante jumaa jooju ku nekk yonent rek yaay doon xalifa ba ba ci Seydina Zakaria moom moo ko nekkoon fa tabarakallahu moo ko Imran eh, Imran boobu moo doon jëkkëru Xanna ba yàgg yàlla dogal eh, mu dem ba màgget Xanna itam dem ba màgget mosuñoo am doom Xanna dem doon di dox ci àll bi gis benn picc boo xam ne nii dafay sexal doomam Euh, euh, day sexal doomam lu mu lekk yaramam daw mu ne ay yàlla boo ma mayoon doom bu góor danaa ko yóbbu ci jàkka ja eh, di gannaaw bu ma ko nàmpalee comme ni picc bii di nàmpalee doomam danaa ko yóbbu ci jàkka ja mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy taxaw jàkka ji yàlla may ma loolu te ba màgget na ci saa si rek yàlla dogal quelques jours mu ëmb bi mu ëmbee nag jëkkëram feebar di góor gi Imran feebar bi di jëm kaw kanam di jëm kanam ba yàgg mu faatu bi mu faatoo nag mu jël kilifteef gi jox ko Zakaria Zakaria nag soxnaam ak Xanna mii ñoo bokk ndey ak baay moom itam mook Imran ñoo bokk doon yilimaan ci jàkka ja ci baytul maqdis euh, Zakaria itam euh, yàlla dogal mu amee loolu amee loolu ba Xanna bi mu amee doom muy jigéen mu am déception ne rabbi inni wadaatuha untha yàlla man ndeke ki ma jur jigéen la dama foogoon ne góor la euh, te wallahu alamu bi ma wadaat yàlla moo gën a xam ki mu ki mu am ndax moom moo ko may mais ala kulli xaalin euh, mu woolu Zakaria ne ko yóbbul ma ko ci jàkka ja parce que sama yéene la woon waa jàkka ja opposé wu ne fii jigéen du fi dugg internat la boo xam ne daal ay góor rekk fi nekk coow li bari ba yàgg Zakaria insisté na leen papam moo fi nekkoon te kii yàlla euh, yaayam misère la ko defoon ñu ne comme jigéen la nag day laaj mag moo koy yor ñu ne léegi ku koy yor kenn ku ne di revendiquer ne moo koy yor ci imam ya fa nekk Zakaria ne nañ ko bantale biñ ko bantalee ci ndox bant bi Zakaria jël ko Zakaria nag légitimement moo ko waroon a yar parce que mooy denc tàntam na koy ko wax digg yàlla sa tànt nag mooy sa yaay yàlla dogal ci miracle boobu Zakaria yar ko muy Maryama al Azra ñu defal ko nag benn étage benn néegu étage ci kaw jàkk ji ba nga xam ne kenn du am accès ci moom ku dul pàppam muy Zakaria boobu mu dem nag ba Maryam doon jànq rafet lool sell lool yiw lool bari kersa lool xol bi rafet lool ñu tudde ko alqiddisa la Sainte Dame Vierge kooku nag moo nekk ci xaal boobu di jaamu boroomam ba waa dëkk bi banu Israil buñ ko ci yedd sa doom bu jigéen danga naan xanaa yow doo lu nga sell ba mel ni Maryam mi nga xam ne nii dafa sell sell ba ñépp xam ko cell te googu nag dem na ba yàlla def ci moom miracle Maryam ku feebar bu la laalee sax nga wér ku feebar bu jëlee ndox jàng ci dara jox la boo ko naanee wér Maryam luñ ko jox ci alal day fekk borom ahat yi ñi nga xam ne ay lafañ lañu ay gumba lañ ñooñu la koy jox di def nag ay kéemaan boolek tabe bu yéeme ba dëkk bi yëpp ñee ko ba jigéen ñépp di ñaan yàlla am doom bu jigéen pour yóbbu ko ci Maryam mu leen koy yaral ñu nekk ci xaal boobu benn bés nag Maryam ci tëju xalwa gu metti googu benn bés mu génnoon dem ci àll bi pour doon féexlu ji naka la dem ba sori nit ñi rek boobu 16 lay am maximum 17 ans gis benn jëmm joo xam ne nit la xamul nag deful bruit ndax booy dox sax am lu lay topp di nga dégg bruit waaye dafa jékki-jékki rek devant elle mu gis fa jënn jëmm ju rafet nag weex tal defar bopp bi coiffé ko euh, ne jimet ci kanam maryamu si yam ci moom tiit ne inni audu bi rahmani minka in kunta taqiya xale bu góor ak xale bu jigéen daje ci àll bi xale bu jigéen bi rafet lool xale bu góor bi rafet lool ceene xam nga Maryam dafa tiit ba mu jegi di muslu ci yàlla ne ko nag in kuntan sax ti yaa ndeem ragal nga yàlla mu ne ko yàlla mu ngay wax ne naa ko ragal moo ma yónni dayer ci yow mu ne ko yàlla mu ne waaw in mu ne ko inni rasulu rabbik sa ndawal borom laa li yahabalaki xulaaman zakiya yàlla dala bëgg a may doom mu ne ko li may waxatee ngi nii man déjà maa ngi musu ci yàlla ci yow ndax góor ak jigéen ci àll nga may waxati waxu doom te ku ne xam nga ne doom fi muy jaar ba am kenn ñëpp xam nañ scénario bi maa ngi musu ci yàlla mu ne ko faw yàlla moo ma yónni ci yow mu ne ko mais an naa yakunu lii gulaam walam yamsasni bashar nan laa mën a amee doom te man fas yéenew maa séq ak góor gu ma takkul te awma gu ma jëkkër mu ne ko daal kazaalika yàlla daal noonu noonu la fi tëddee daal bi mu naan nag kazaalika rek la ko roofaale leer kazaalika googu la kazaalika Maryam yëg ne am na yaramam sedd tuuti mu yëg ne am na lu ko dugg loolu ko dugg nag loolu la def jëmm ji mu doon waxal ne mes ci lay soog am confirmation ne malaaka la woon mu toog nag ba yàgg yëg ëmb ëmb boobu la téere yi di werante nu mu toll ñii ne nañ ëmb normal la neuf mois ñii ne déedéet trois heures de temps la ko ëmb ala xaalin kéemaan mu ngi ci parce que amul faxl euh, benn bés mu génn ci àll bi yàlla dogal mu accouché fa accouchement bu gaaw lool ne nag yàlla yaa laytani mittu qabla hada gàcce gii ma am demoon ba dëkk bi yépp di ñaan yàlla pour am doom ju mel ni man ma xëy xëy am fi doom boo xam ne nii amul bay dëgg dëgg dëgg gi gàcce yàlla aka neexoon ma dee bu yàgg-yàgg ñu fàtte ma moom xam na ne deful luñ koy yedde mais neexul a justifier ndax ba humanité amee ba tey musuñoo gis doom ju amul baay euh, Mariama jooy Jibril feeñuwaat ko ne ko sa borom nee na dafa bëgg yeggalee ci yow ñeenti kéemaan yu mu defoon mu ne ko yan la mu ne ko moom nee na bind na ku am ku amul ndey amul baay muy sayyiduna Adama Adama ci suuf lañ ko defaree bind na itam ku am baay te amul ndey mooy si sittuna xawwa Hawa baay la am muy aadama ci moom lañ ko jëlee waaye amul yaay kon judduwul ñetteel bi mooy nit ñëpp ndey ak baay la am. mu bëggoon nag wanewaat beneen kéemaan ndax ñëpp jàpp nañ ne góor doom joo gis baayam moo koy jur mu bëgg wane koo xam ne day am yaay te du am baay loolu nag la bëgg yeggalee expérience boobu ci yow mais boo demee ca dëkk ba buñ la laajee doom ji ku ko jur yow bul justifier sa bopp ndax doo ko man ndax jigéen mënul wax day jooy mu ne bàyyi liir bi wax liir bi bu waxalee boppam dinañ xam ne ki wax loo liir bi mën naa bind liir bi te du am ndey ak baay moo tax yàlla ne inna mathali isa ibn isa inda allahi ka mathali aadam xalaqahu min turabin thumma qaala lahu kun fa yakun alxaqu min rabbik fala takunanna min almumtarin maryama dellu e, ñu gis ko mu yor doom nit ñi topp ko doom ju jur la wala dañ ko ko jox doom ju jur la wala dañ ko ko jox e, jibril nag ne woon na ko bu ñu la laajee ne inni nazartu li rahmaani sawman falan yow ma insiya man kat dama woor te ñoom seen koor jamono yooyu ñàkk lekk ak ñàkk a naan ak ñàkk wax la daan àndal. téere nag ñu ngi laaj moom wax ji mu wax ne inni nazartu li saw ma xam nga wax la moom loolu lan nan nan la doon téere na déedéet euh, maanaam bu ko waxee ba pare la koor gi tàmbali koorul wax gi day wax loolu ba pare soog a nag tàmbali wax koor gi. bi mu ñëwee ci jàkka ja mag ñépp dar ko mbooloo mi dar ko ñu ootante ñëpp ñëw presse bi ñëw taxaw lu xew Mariama lii lan la ndax loolu bés bu jot ñu gis ku mu dal te du jur boobu influence mais comme kii nag moo doon royukaayu jigéen ñépp te ci jàkk ji la internet lii bu amee ñëpp danañ ko mën a yëg bi ñu ko yëgloo ñu ñëw daje ci ilimaan yëpp ñëw ne ko anna laki haza euh, afwan fan nga jëlee fa min ayna laki haazal euh, gulaam foo jëlee doom ji mu ne leen inni nazartu rahmaanu sawman falu ñu ne koor gi ngay dog koor gi ngay dog doo fo doo fo am doom naan dama wor ne dag ñuy kii non loolu doy na c'est fini yow liñ doon wax yëpp ndekete sal nga nekke woon fii naan sent daam da nga yiw ndekete yow da lu ne ñu wax ko mu ne leen daal li ma mën a wax mooy inni nazartu li rahmaani sawman dama wor mënumaa wax ñu nekk nag di nga wax mu junj leen fa asharat ilayhi mooy loolu ba mu xësee na indi nazartu waxaatul même bi muy wax xale bi sax dafa junj fa asharat ilayhi mu junj leen ne wax leen ak xale bi mag ñi ne gën a mer ne ko même danga ñu yëpp nan ngay defee jëf ju rëy jii kaar ba pare di ñu yebalaat ci xale boo xam ne ay heure la amagum ci àdduna téere yi dañ jekki-jekki ne ne xale bi dafa jekki-jekki ñu fojjat toog fi fojjat toog liir ay heure nag la fi def ne ma ne inni abdourahman laa wax inni abdullah inni abdullah kàddu gu set wicc ñu naan déedéet lii wax lan la lii wax lan la ba yàgg ñu janoog moom mu ne ma ne déglu leen inni abdullah jaamu yàlla laa wax bu ma kenn damm lii olof de wax bu ma kenn damm ataaniyal kitaab tay tay tay la ma jox téere te jógagul ci ay berceau nga xam ne yàlla kon temps existé ci moom passé ak présent ak xam nga injil lay wax te injil ñëwagul moom mu ngi tëdd ci berson mais jot na ci ba pare ataniyal kitaab wa jaalani nabiyan fii wa toog wa jaalani mubaarakan billaahi dëgg la man dama am barke barke moo taxoon ku mu fekk nga silmaxa wala laale sax euh, nga xool euh, wa jaala wa baram bi walidati nee na nag naa topp sama ndigalu yaay li mu setalee yaayam waxul bi waali day sama ñaari wuy jur sama wuy jur rek la wax kon yaay rek la am ñu dégg ci ne yaay am na mais bi muy daaneel kàddoom fekkatul kenn taxaw ndax ñëpp daw nañu di yuuxu naan jombi nañ jombi nañ moo tax version boobu bu ñu ko alquran waxul woon téere yi nee nañu kenn du ko indi parce que ku taxaw déglu wax ja amu fa ah waaw dëkk la nag ko yéemu war ngaa mën a yéem ci liir bu toll tooy xeb di wax wax ju toll nii di expliquer ay was jaale ni mubarak nag yooyu doo ko déglu ñoom ñoom ñu daw bi ñu dawee nag ba yëf yi sedd Insa màgg màgg gu gaaw Insa nag dafa màgg niroog yaayam moo tax Insa comme jigéen dafa rafet comme rafetaayu yaayam nekk nag xaritu yaayam doon càmmeñu yaayam yaayam la mais xaritam la ñuy ànd nag di fanaanoon fanaanandoo di naafila guddi di yendoo koor noon naafila di yendoo koor ba benn koor nag mu yaay ji dog ba pare mu ne mu dem wutali ko lu mu ndogoo ci àll bi ñu nekkoon mu ñëw ndekete yaay ji yàlla yebal na malakal mawti mu rocc ruux bi bi mu roccee ruux gi mu ñëw moom Isa ci yar beeg teggin ngi ne yaa umma yaa umma ay yaay dog jot na de mu gis ko muy nelaw mu ne xam naa mère bi dafa fatigué tey naa ko bàyyi ba ci kanam dem ba vingt et ñëw ci moom ne ko yaa umma dafa mel ni mu ngi guddi de ñi naafile ñu ngi waaj a tàmbali mu continuer di nelaw mu dem ba trois heures du matin mu ñëwaat fekkaat ko muy nelaw mu ne mère bi dafa sonn bi mu demee nag ba fajar mu ci la ko yee ak nekk yaay fajar a ngi jot mu fekk yënguwul mu jooy na ay sama sharikatu xayaat yi ki ma doon partagel sama dund dem na suul ko nag léegi nag ci la soog a wàcc montagne boobu duggaat nag ci dëkk bi di commencé di def ay kéemaan ku mu fekk nga silmaxa bu la raayee nga xool ku mu fekk nga ràmm bu la raayee nga wér mu gi mu am ci mbooloo ak sonorité lu kenn xamul mu gi au lieu que nit ñi dem jàkka ja pour ñaan fa seeni soxla ci instant ngay jëm loolu du jur frustration yahut yi nekkoon nag ci jàkka ja nga xam ne dañ doon dunde diine ji mais dundaluñ ko ñoo ko opposé di ko tëkku di ko tëkku ba kenn ci compagnon yonte yàlla Isa ñu fay ko alal ju bari pour mu wan leen fi mu nekk guddi pour ñu rey ko ba mu jotee ci xaalis bi naa Jibril nag ci la ko feeñu nekk xam nga lu xew sa borom nee na da lay yéege da yéege defal sa dernière déclaration te mu yéege la parce que dañuy un interrompre sa mission ba ci axiru zaman mu ne nag yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min altawrat wa mubashiran bi rasulin yati min baadiya ismuhu ahmad te aalamul arwaax am na ku kuñ leen waxoon ne dina ñëw day sauver àdduna kooku laa doon yëgle si ahmad la tudd man nag maa ngi dem boo leen ma gisatul te gis ka na ngeen xam ne mission seyduna aadama ba ci man ki kooku lay mate loolu la wax disparaître ba juif yi ñëwee naan waa ji waa ji jiitukat naan xaar leen ma dugg mu ngi ci néeg bi naka la dugg ci néeg bi rek yàlla jox ko kanamu yoon ci yàlla makket bi lañ ko jox maquette bi mu génne naan mu ngi fii mu ngi fii ñu nekk déet yaa ngi nii yow yaay Isa xam nañ la mu ne non man maa maa leen doon wan ñu nekk déedéet yow yaay Isa kooku la ñu jël téye ko futti kawam set kaar yóbbu ko ci place bu mag crucifié ko dóor ku dóor yu méttee méttee kooku dóor yu métti na mu naan du man man du ma insa man ngeen fayoon ñu ne ko léegi comme yow wan nga ne doo insa yow lañ fayoon léegi yow kiñ fayoon anamu waaw xam nga comme moom nee na du insa te kanam gi moom la ñuy gis mais moom yëgul ne moom kanamu kanamu insa la yor xam naa jotu seetu da ko jotu la am ndax seetu da nga koy tal moom gisul boppam mais ñii insa la ñuy gis ci moom mun naan man ngeen yónni woon ñu nekk léegi génneel ñu kooku rek mu neen mu ngi maa ngi nii ñu nekk déedéet yow yaay Insa ñu ne mais ki ngeen yónni woon ak ñu ne ñu sexuñoo kooku dara li ñu bëggoon cible bi mooy jot Insa mu ngi nii su mi ko def ko yu bon fa tabaarakallaahu Insa nag ñi ko sopp faw ñu justifier li mu doon ndax yëkk ji bu ko alquran waxul woon kenn du ko yëg bal rafaahu llahu ilay loolu kenn yëgu ko te kenn informé wu ko léegi nag ñi ko sopp dañuy jàpp ne dóor googu ñu ko dóor gàcce gu rëy la ci ñoom moo tax ñu sosaat ay wax naan noo day yóbbu bàkkaaru xeet bi yóbbu bàkkaar noonu lañ koy yóbbu ah naan foofu mu tuur deretam pour yóbbu bàkkaaru xeet bi koo xam ne dafa tooñ ba pare ñu demaat dóoraat yow koo ba pare nga dóoraat ko mu ne noonu lay yóbboo sa bàkkaar xam nga boobu du a set mais ñoom loolu lañ fa mën a teg mais alquran mi nga xam ne moo ko justifié waat six siècles après Euh, ñoom moom lañu waroon a gëm bu ñu ko gëmoon rek dinañ gàggantiku mais nag yàlla nee na wa innahu la ilmun lissaa yonte yàlla isaa nag balaa àdduna tukki moom dana wàccaat yi ñu ko taqal yépp mu setalaat ko ci deram ba mu set wicc après àdduna di soog a tukki léegi nag mission prophétie jeex na yonte yàlla muhammad nag moo war a ñëw mu ngi yabaloon sayyiduna aadam moo jiite yonant yi muy ñëw di ñëw ba ci yonent yàlla euh, Isa mu tëj ko léegi nag phase boobu nga xam ne moo doon phase bani Israil Ibrahima jurloon jaar ci Ishaq mu ngi yem ci euh, yonent yàlla Isa léegi nag beneen branche bi nga xam ne mooy Ismaila moom malheureusement amul doomu yonent ñi mu jur mooy arab yi ñooñu dem a dem a dem ba fa tabarakallahu dérouté wu parce que gisuñu yonent bu leen orienté mais yonent yàlla Ismaïla yàlla dana ko muñal dinaa la may benn doom boo xam ne mooy équivalent ci mboo maanaam moo ëpp doole mboolem yonent yi sa frère bële am muy bani Israël te muy yonent yàlla Muhammad kooku bis bu ñëwee nga fàtte ne euh, tabaarakallahu amoo woon sëtu yonent te noonu la ko yàlla defee ndax yonent yàlla muhammad kese ci sëti ismaila yi moo ci yonent moom rek nag nga xam ne loolu kon li ñuy wax naan benn bu man junni koo koy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla yokkal ñu leeram bi mahdi fadlihi wa juudihi bu ko defee nag ñu war a jublu nag ci qissatu makka ñëw ba ci tabaarakallahu ak juddoom toppe ko noonu yal na yàlla defal ñu fatxan mubiinan ak dégg bi mahdi fadlihi wa juudihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh